asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen kër gii di njaboot suñu Mbalim Fall gi ci turu jëwriñu di si amul fàttal noo ma ngi leen nuyu den sant leen gërëm di xam ni di xam leen ni la waral baal ba su sawar mu sawar koo joxe ah, asugoro moom ci ay waxam rek la si ko mën a yeewu te kenn ku ne ba nga jaayante yàlla lu ma digal ma def lu ma tere bàyyi yéen la ngeen waxoon jàpp ngeen ko yéen fas ngeen yéene lu suñu wax lu ne ngeen ko may dañu ko def bu ngeen ko may dañu ko kon dafa am baat bu jógee di ca jëm Sëriñ Tuubaa ji seen moom dum taxaa ñoom jëm seen faal lii di seen faal suñ noo ñaan suñu borom seen buntu wéral leen mooy dafa bëggaat sëñ bi sëñ bi dafa bëggaat bu nu ci altine ji ñu seen insa rabbi moom nu delluwaat ci day yéen bis ba yéen di xëy gas yi ndax seen baat ne ci baat ndax seen baat ci seen baatu ko xëy kon waxaat gi rek li tax nuy nuy wax nuy waxate noonu waaye moom leen ñuy digal waxtu la noo ngi bis bu ne mbooloo maa ngi xëy waaye dafa dafa xam ne dafa bëgg nag fii ci station bi sel nga xam ne moo sës ci euh, arrondissement bu Darman bi mu taataa bu mag ba wii bu altajaan tàmbali ab gas mu jaar ci biir gas bu njëkk ba àgg ca canal ba jëm Daaru Rahman jooyet jumaa ja insa bi loolu ndigal la waxaat léegi léegi léegi dafa dayu ñëw kon noonu ñaan suñu boom fe ñu xay yéen jëfe ndigal rek leen war war sax noonu ñu xay jëfe ndigal bëgg yàlla na ci àgg a jëfe ndigal yi na ko borom bëggee moo tax suñu bëgg mun a am nañ ko bëggee kàddu yooyu la si bi noonu nañ ko wax ma ngeen sant baat ba yooyu yoon ba ngeen déggee baat rek dañ daal jóg fa saasa jëfe ko kon bu baat jógatee nawoon lay rek moom ku ku ku bëgg ku bëgg a jóg jëf baat jëf baat bi baat bi lay yëkkati ko namul nag baat bi sukkandikoo la jóg kon yéen ñi ko nam faw ngeen faw baat bi yëkkati leen na nga ko bëggee dañ koy may dañ koy def insaara bi dara duñ ci loo koy insaara bi moom ko ñaan suñu borom ak seen fal kon jot leen kàddu yoon si jox jox ñëpp kon des ko jaarale ci yéen waaye njëbal suñu mën faal gépp nag waaye yéen i bunt yi moo tax ñu tudd seen tur kon nag koo xam ne si yaakaar si mën faal nekk na nga jot ci kàddu yi jëfe ko nag rawatina nag jaww si rafaal gépp rek na waaye da di ndax ki ko joxe moom jënd si rafaal la ko jox te kii di kii de day day jëwrinam nag ñoo ko def seen jëwrin kon nag sañ na ko wax loo sañ na ko def loo kàddu yaa ngi ko tasaare leen ko da ngeen ko def ba ñëpp jot ci insar bi